képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugale ci dana ko am en exclusivité gannaaw xibaar bi bi mu jàllee démb woo nga ñu euh, wax xamal nañu ne mhm. xale yi yóbbu woon nañ leen hôpital te kenn ci seeni waajur teewoon na dañoo sibroon mbir mi mhm. naka la demee naka ngeen ko yëgee ba ñu te police ñëw jël xale yi ba yóbbu leen autopsie yóbbu leen Dakar pour ñu maa ngi nuyu waa rajo bi yëpp di leen ziara. Mhm. di ziara yi ñuy déglu suñu kàddu. Mhm. di wax na rek li tax ñi ñu woote mooy bëgg a leeral mhm. yi mbir moom bu amee. danga nga ci dégg ay version yu yu wuute. te bi ma nga dund ko. war war nga war nga caa dund kumpa ñu bare bare daal. dëgg la. ndax ñii ay soppe lañ ñii ay leneen lañ. waaw daa ko leeral daal moom leer rek day am solo lool. dëgg la léegi xale yi kenn kii. moom la ñu tudd Dame mhm. kenn ki tudd Abdou Samad Siñaan moom la ñu tuddee borom daara ji. Mhm. kenn ki. Mhm. mi ngi des ay ay ay trois heures yooyu du matin ci guddi. trois heures du matin la génn àdduna. waaw kan la ci. mooy ku mooy ku ku ndaw ki daa mooy ki Abdou Samad. keneen ki ay quatre heures. une heure de temps après keneen ki génn àdduna. waaw une heure de temps ay trois ay keneen ay quatre heures demi ay quatre waaw. waaw bi léegi léegi avant loolu nag wax naa ne la daara ji man nañ deux cent et quelque. Ah. yaa ngi dégg. waaw te li ëpp ci xale yi dëkkuñ ci dëkk bi seen wajur ñu dëkk bi. Mm-hmm. li ëpp ñoom bu ñu feebaree sëriñ mooy def ay effort am pour faj leen. Mm-hmm. am am na fi benn clinique suñu wax Moustapha Diouf mi ngi fii Cham la nekk. Mm-hmm. li ëpp ci xale yi foofu la ñu yóbbu bu ñu bu ñu siburoo fa fa fa ñu fajoo. yaakaar naa Moustapha Diouf ñu bëri xam ne ko ci dëkk. xale yi kon bu ñu feebaree ñu toog ñu toog dina xoolal dañuy ñu mën yëpp. léegi nag bi ñaari xale yi faatoo. Mm-hmm. léegi ay sept heures euh, quart yooyu. Mm-hmm. lañ leen yóbbu fee margo bi ci gédé. Mm-hmm. ndax ñun li ëpp ci xale yi faatu faatu ci daara ji wala même man sama jëlaat sax foofu lañ koy suwar li ëpp ci xale yi faatu ci daara ji wala ci lu ko nuru. fa lañ leen yóbbu ndax mu mu ñu gën a jege ñun. gédé waaw. waaw gédé waaw. léegi loolu nag moo sababoon ndax man ñun yàgg yàgg nañ faa yóbbu ay xale. waaw léegi nag bi ñu bi ñu yóbboo xale yi ci ay sept heures quart yooyu. dañuy dañu wàcc ci daara ji. Mhm. pour bëgg bàyyi léegi ba ba mu naaj onze heures midi ñu ñëwaat. léegi mhm. ñun ay onze heures demee lañ jógee fii ñëwaat ñëwaat foofa gee def. biñ ñëwee biñ ñëwee fekk bu borom daara joom ñu ngi ko bàyyi ci daara ji. Mhm. moom mu jaar ci sëñ Modou pour mu bindoo kayit bi ne xale yi fii lañ fii lañ jógee Saam lañ sañ sëñ Modou mooy kan. sëñ Modou Faramata mooy chef de village Saam Saam Cheikh Abdoulaye. chef de village bi ngeen dem yéen. Saam mu bindal leen kayit waaw. waaw waaw. après bi loolu amee ñu demaat ñu demaat ci biiru ba foofu ñu demaat gerte ci biiru bi bi dem ñu demaat fa pour pour wut kayit foofa. Mm-hmm. xamoon ñu ne comme que seen seen seen village mi ngi mi ngi indiqué loolu amatu ci solo. Mm-hmm. léegi nag ci noonu lañu dellu ñun di di di di xale yi pour waajal leen. Mm-hmm. ak yi dem pour pour defar pour defar barab ba. bi la amee nag ci la am kenn ko njëkk ñëw. ne ana ana ku fi indi néew yi ñu ne ñu ne ñun ñii la. Hmm. suñ jegee ñu leen Cham ñaar lañ ñaar lañ ñoo bokk yéen daal ñu ne waaw mu ne arrêté leen arrêté leen mbir mi. am arrêté leen mbir mi il faut ngeen am kayit gu jógee ci docteur wala gu jógee hmm. waaw ci noonu nag ñun ci lañ arrêté. Hmm. bu ñu arrêté affaire yi pour ñun euh, jéem a lijjanti jëmaat euh, fii pour pour pour wut kayit léegi ñoom ci la ñu woo police ñëw jël xale yi. waaye xale avant loolu am. ñoom biñ ñëwee nañ arrêté liggéey bi. dañoo woo seen parents ba ñu ñëw. Mhm. ñëwal leen xale ñi xool xale yëpp. Mhm. ndax ñu bëri dañuy jàpp ne xale yi dañ leen def dara bañ faatu wala dafa am nangam nangam am na sax ñu wax xale yi dañ leen jéngi jéngi lañ faatu dafay ko loolu lépp dara amu ci. Mhm. xale yi ubbi yëkkat xale yi dañ leen dañ leen a ubbi simil seen wuyu ji bañ xool leen. mais xale yi waxuma la waxuma la gaañu waaye xoolee ko sax amul seen yaram xoolee ko ah xoolee ko amul seen yaram yàlla xam na loolu. te incha allah biñ demee hôpital gis nañ ne loolu li ñu waxoon moo am. mais kon nag buñ ci ay version bëgg ñëw ne xale yi dañ leen a dóor wala dañ leen a torturé wala yooyu xam nga loolu loolu loolu day day wuteeg li am. waaw ah, non ki euh, sëriñ bi ñi nga. li lu suñu mooy. Mhm. ñaari xale benn barab. Mhm. ci même bi. Mhm. ñu bëgg leen moom loolu dëgg la luus na seen xel. te amul kayit yéen lan moo tax demu leen ci kër docteur bi ko fajoon lu tax demu leen foofu mu ut jox leen kayit bi wane ne xale yi génn nañu àdduna. gis nga li may wax nii. dama ci am preuve bu leer nañ. ñun mosuñoo denc foofu barab. Mhm. ay xale ci barab booba. ñi laaj ñi laaj ñu génn kii du jóge ci chef de village li ma la wax ni moom maa ci am. tënk bu leer naññ chef mhm. Mhm. ñu laaj mooy laaj certificat de sax mos ñu laaj laal la ñuy laaj mais mais bu fekkee loolu la ñuy laaj nañu dañu ko foofu kon dañ koy wuti ñi ñi mais ñi ngay ci ñi yaa maa ngi la dégg sànq ba léegi nga ne yàgg nañ fa denc ay xale ñi ngay ñi fa yëpp ci xale mat nañ ko a expliquer. waxeel la ci ne ci sànq hmm. ma xamante ne bari na. waaw. te nit moom ñu bàyyi xel ne nit daara moom kër moo kër yam nit nit di faatu ci daara la faatu ci kër. ni ñu faatu ci kër hmm. waaye léegi waaye nag xale bi xale bi ñi ma ñi ba xamante ñi ay suñu daara hmm. léeg bu seen dongo faatoo ñun ñu ànd ke eh, rob ba fa la yóbbu yóbbu xale yi. dëgg la dëgg la dëgg la. bu ñu demaat li ñuy laaj mooy attestation bu jógee ci la ñuy laaj. Mm-hmm. waaye bu fekkoon kon dañ ciy wut ñun mag yi jëm lañ tax xam nañ. Mm-hmm. ñun réew mi nekk dara ëmpuñu ji mm-hmm. ñu war dañ xam nañ li ci réew mi bu fekkoon ñu ko laaj kon dañ ko yóbbu ñun ndax ñun fayewuñu nit kuy xëy liggéey ci nit soo moongoon kooku du fayee nit loolu loolu mooy ci nekk léegi ana ana sëriñ bi mu ngi ci commissariat bi waaw am ñu ngi commencé waaw guy mbind ba tey xale yi ñoom ñu ngi dakaar wala ñu ngi Dakar waaw xale yi waaw li mu am moom mooy ñu ngi Dakar hmm. Hmm. defaguñ autopsie bi euh, amagu leen ci information waaw ñu ngi yaakaar nag mën mais mais mais sëriñ bi euh, ki nga demee ci clinique bi bi mu demee jox na leen ay garab jox na ay garab jox na ay garab am na am na ordonnance yoo xam ne ñoom police bi fi gis nañu ko ñoom war nañ leen ordonnance yéen ordonnance war nañ ko très bien hmm. léegi beneen yoon nag lii day tax tamit euh, ñu ci xam naa ne peut-être li ngeen def Euh, ñii nga xam ne ñooy waa Kër Sëñ Mbacke bu yi li ñu def. Euh, xaj na ñoom it bu nekkoon yow sax boo nekkoon seen place sax noonu ngay doxalee parce que. Ah, oh. ñaar nit ñu génn génnandoo àdduna benn mm. bés bokk fu ñu génnandoo ba pare yoruñ benn kayit. Mm. bu doon yow yaa nekk place am ni mu doxalee sa rôle ngay doxalee. non non yoruñ benn kayit am nañ kayit de. Mm. ñeen naa am nañ attestation bi nga xam ne moo jógee chef de village ñun loolu lañ fa bi wan ngeen ko wan ngeen ko ko ñoom. ah kay wan nañ leen ko gis nañ ko. Hmm. bi ñëwee kayit wan nañ leen ko yàlla xam na loolu. ñoom wan nañ leen ko pour naa ñu moom léegi daf ne yéen indiwu leen benn kayit quoi loolu la. <laughs> ma ne. Mhm. yàlla xam ne borom daal de moo indi kayit gi jógee ci suñu Moodu kayit gi bu ñëwee kayit gi taalal nañ ko seen kanam ba ñu gis ko ci doon sànq néew bi gis na kayit hmm. waaw. waaw la jërëjëf jërëjëf. Euh, ah, gërëm bu baax. Mhm. ok euh, euh, buñ ko bàyyi ni Matar. El Bachir ñu bëgg rek lii dafa war a tax. Hmm. nit ñi gën a gën a gën a xam li nga xamante ne mooy wareef ñu koy ñu koy def parce que donc ma malentendu yi la wala mésentente lu ci bëri fi nekk nii am na parce que boo xoolee xaj na ki nga xam ne moom moo interpellé mbir yi. mën nañ ko comprendre parce que dafa jàpp ne le fait que ñu romb ay ay ay armeel ñëw indi ko fa mbenn bés ñaar nit gënandoo àdduna loolu dina tey xelam te amul kayit gu jóge kër docteur. Mm. ñi nga xam ne ñoom ñoo di wàllu yoon it mën nañ la toppee parce que procureur euh, bu fekkonte ne am na. kayit guy wane ne mën na ko findeel autorisation fi mu nekk nii acte bi ko euh, yoon di toppee mooy suul denc nit te amoo ci autorisation. ñoom it dégg nga li ñu wax donc kon muy sëriñ daara muy keneen koo xam ne am nga ku la jegeñaale yàlla tere ku génn àdduna demal woy kër docteur moom mu attesté ko ñëw xool même bu dee ci kër gi la génnee àdduna sax. Ah, loolu mu xool xam ne kii génn àdduna. loolay problème mu dëkk bi defal la papier. loolu mooy problème mu dëkk bi mu mu dem parce tamit. li ma lay wax nii. Mhm. man maa fekkee ndaje boobu commune Touba. Mhm. rencontre loon boo xam ne dañoo bëggoon jël décision boobu képp ku faatoote ci kër bala muy génn.